abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot yu wér te ci réew mi ak ci bitim ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall mu sant ñu ñu ñëw massawu ñi euh, ñakk seen ay doom Sénégal yëpp ñàkk moom ci boppam mu ñàkk njaboot goo xamante ni dañu nekkoon ci benn gaal bu def benn accident ba am ñu ci faatu di massawu tamit. ñi nga xamante ni ñoo ci am ay gaañu gaañu dem nañ leen seeti léegi ci hôpitalu Ndar bi waaye dem leen seeti ci infirmerie aussi ñi nekk infirmerie wu base navale nord. may profité si occasion bi di sant di gërëm bu baax Euh, force de défense et de sécurité muy marine muy police muy gendarmerie ci coordination gouverneur u région wu Saint-Louis ñu leen di wax ni liggéey bi ñuy def ngir askan wi ci fànn bu mu mënti doon gis nañ ko bu baax te ñu ngi koy rafetlu loolu la son excellence monsieur le président de la république Macky Sall waxoon ñu ñëw euh, teewee fii ngir jottali ko li ci topp mooy dama bëggoon leeral tuuti ni mbirum. dem ci géej gi li ñuy wax mbënn mi lu gën a compliqué la que nit ñi liñ koy présenté léeg-léeg mbëkk mi mbëkk mbëkk mi ci biir géej gi euh, alors liñ koy présenté lu gën a compliqué la que loolu euh, dañuy faral di xalaat ñenn ñi di wax ni euh, ñii dañu ñàkk xëy wala ñii dañu am ay jafe-jafe ci wàllu koom-koom loolu mooy waral ñuy dem ci géej gi waaye may fàttali nii loolu dafa am ñu seen xam-xam màcc jëm ci loolu dem ci beneen réew bu dul sa réew yàgg na ci àdduna bi àdduna sosoo ba tey liy firnde li mooy ñun ñëpp ci menn maam lañ soqeekoo waaye tey tasaaroo nañ ci àdduna bi ba réew moo dem wala continent boo dem wala dëkk boo dem ay nit ñu ngi fa dëkkee loolu li ko waral mooy dafa mel ni ci suñu biir euh, nit ñu bindee ak nit ñu mooñaale dafa ci am bëgg-bëgg bu nit di am ngir léegi léeg mu jóge fi mu dëkk dem feneen loolu mën na ko euh, expliquer problème économique mun na ko expliquer problème sax euh, sociologique am ay dëkk yoo xamante ni wala am na ay xeet wala waaso yoo xam ne dañuy faral lu bëri di déplacé wu donc problème bu complexe la bu ñu mënul ramener seulement ni problème mu koom la wala problème mu xëy la li koy firndeel mooy ñi ngi ciy liggéey boobaak léegi ëpp na ak te ci biir liggéey bi léeg-léeg nga nemmeeku ni kiy jóge ci réew mi bëgg a dem feneen am na xëy wala moom ci boppam day fayal boppam fayal yeneen nit kon kooku du koom-koom moo ko tax a jugee fi mu dëkk ngir dem feneen ni nga ciy gisee tamit ñoo xamante ni dañuy yaakaar ni bu ñu jugee fii dem feneen dinañ fa gis xëy ba tax na damay euh, invité ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi wax ci phénomène bi wala beneen phénomène bu dul boobu bala ngay wax ci dara nga gëstu ci wala nga am ci xam-xam wala nga laaj ñi nga xamante ni ñoo xam ñu leeral lu ko moy yow mi réer da ngay jàpp ni yaa ngi leeral te da ngaa réer di réeral yeneen nit te nag yaakaaruma ni kenn ci àdduna muy man wala beneen nit am na droit fekk jàngoro doomu aadama wala jafe-jafe doomu aadama wala naqaru doomu aadama mu ciy sukkandiku ngir di ci def politique wala mu koy instrumentaliser nit bu nekkee ci jafe-jafe wala ci tiis wala ci naqar lii jaadu mooy xool lan mooy solution mais jaaduwul nit ñi di ci wax mel ni dañ ciy profito pour def wàllu politique Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xarñaar te képp koo xamante ni bakkanam bàyyeeku na fi Sénégal wala am na tiis bu ko dal ci ñun ñëpp. la dal ci ñun ñëpp la dal ba tax na li may woote mooy ñu gën a ànd ak retenue li tubaab di wax retenue pour éviter quand même yenn polémique stérile yi li nga xamante ni nag mooy wàllu gouvernement bi mooy solution te solution bi war gouvernement bi ci loolu président de la république le 30 décembre 2020 dafa modifier décret bi organisé ministère de l' intérieur dugal ci li ñuy wax comité interministériel de lutte contre l' immigration clandestine dal di fal benn secrétaire permanent muy un commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle bu tudd Mamadou Bokar Ly bi ñu ko falee man si sama bopp au mois de novembre deux mille vingt et un ma lancé ay travaux yoo xamante ni teeru bi lañ ko defee woon benn hôtel euh, pour formulation stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière waaye du loo xamante ni euh, ñi nekk ci gouvernement bi wala ñi nekk ci état bi dañuy tëju toog xalaat. bind ni nii la ñuy indee saafara bi képp koo xamante ni mbir mi soxal na la wala am nga xam-xam ci mbir mi dañ la cee boole jël ay experts dugal leen ci liggéey bi loolu moo feeñal dëgg-dëgg ni problème bu compliqué compliqué compliqué la te boo demee fi mu ne ci six pôles territoire yi ñu identifié ci biir dëkk bi foo ci dem am na ay spécificité boppam maanaam foo ci dem li tax nit léeg-léeg bëgg a jóge foofu dem tukki mën na ba mën na bañ a bokk ak feneen ci biir réew mi ba loolu moo waral euh, liggéey boobu avancé nañ ci bu baax techniquement valider nañ ko maanaam ñi seen xam-xam màcc jëm ci loolu wax nañ ni li ñu tënk xayma ko xaatim ko ci kayit bu soobee yàlla buñ ko doxalee dina am ay jéego yu bëri yuñ ci gis waaye dina am ay saafara yu ci juddoo 27 juillet bi ñu jëm mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru julet bi ñu nekk premier ministre nar na jiite benn ubbite ndaje boo xam ne buñ ci bàyyeekoo loolu nag la ñuy tàmbali di doxal lii euh, ñu ci retenir comme solution waaye xaaruñu ba tey ñu door a tàmbali di def ay saafara ci loolu boo leen seetloo at yii ñu génn mbir mi gënoon na metti gënoon na tar kon am na ay jéego yu bëri yoo xamante ni état bi def na ko ci ci euh, kilifteefu président de la république Macky Sall damay fàttali 2005 d'ailleurs état continuité la 2005 la benn loi njëkk a génn ngir jéem a xeex ñi nga xamante ni dañuy gëmloo. xale yi ni boo jugee Sénégal dem Europe wala nga dem Amérique sa lépp sotti na ñooñu di naxaate ba pare di jël xaalisu famille lëm wala di jël xaalisu xale yooyu nga xam ne dañu góor góorlu pour am ay économie pour nax leen dugal leen ci ay conditions de voyage yoo xamante ni seen bakken mën na ci des wala ñu am ci loraange ñooñu 2005 2006 déjà état wu Sénégal jël na benn loi pour daan leen ay daan yu metti waaye yamuñu ci loolu bi ñu doxee ba 2017. am na benn banqaas bu bees bu ñu créé bu tudd DNLT muy division nationale de lutte contre la traite des personnes ñu logé ko a la direction de la police de l'air et des frontières liggéey boobu ñu doon liggéey bu am solo ci biir réew mi ànd ko ak mboore mbooy takk der yi dem na ba jur loo xamante ni at yi weesu at mu ne bu ñu xaymaa li ñu ci gisoon ci jéye dafay wàññeeku ci at ma ca topp waaye loolu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ni doyul bi ñu en deux mille vingt mu créer li ñuy wax SILEC bi ma doon wax léegi SILEC boobu bépp ministère bu sa loxo war a tabbi ci liggéey bi yaa ngi ci biir ñu ciy liggéey sous la coordination du commissaire lii bi ma fàttali léegi tamit ñu def ci liggéey bu am solo liggéeyu waxtaan boole ci association migrants yi ñi nga xam ni mus nañ tukki ñëwaat xam lan moo nekk ci tukki xam lan moo nekk ci jafe-jafe yi boole ci ñi nga xam ne ñooy imam yi boole ci ñi nga xamante ni ñooy chef de quartier yi boole ci képp koo xamante ni mus nga liggéey ci wàllu dem ak dikk te sa xam-xam màcc ci loolu ñu jéem a taataan lépp lu ciy xalaat soppi ko ay euh, saafara ngir mën a régler définitivement là ce problème liggéey boobu jël nañu at ak genn wàll donc liggéey bu yàgg la liggéey bu sori la waaye ci jamono bi ñuy def liggéey bi teewul li état bi waroon continuer di def yëpp mi ngi koy def ba liggéey boobu techniquement pare na ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bu ñu ci noppee ci wàllu euh, validation politique bi après plan opérationnel bi dinañ ko wéyal ngir mën a indi euh, li nga xamante ni moom mooy solution yi ñu retenir ci loolu waaye may wax tamit suñu mbokku jeunes yi ma leen di lancer un appel. léegi yéen ñi àndoon ak ñun dem ci infirmerie bi dégg ngeen benn jeune bu tudd aadama Diop lan la wax léegi ci kàddoom dafa wax ni li ko dugaloon ci dem ci gaal gi pour mbënn mi euh, pour euh, mbëkk mi xañ na dañu nekk ci <laughs> hivernage voilà pour dem ci euh, mbëkk mi dafa wax ni kumpa moo ko ci dugaloon waaye kenn mënu ko ci dugalaat loolu nag Euh, damay fàttali ni lu leer la ci waxin waaye tamit may wax yeneen jeunes yi ni lépp looy duggati lu mu doon ci àdduna bala nga ciy dugg na nga ko xam bu la kenn wax ni euh, kaay ma jël sa xaalis dugal la ci gaal da ngay dem Espagne wala da ngay dem Italie wala da ngay dem. Amérique wala France wala fu mu munti doon te boo fa demee di nga fa am saafara ci li nga xamante ni moom nga bëgg comme moom nga am comme soxla loolu ma fay taxaw tuuti ngir baamuwaat ko wàllu mbëkk mi dem ci gaal dem bitim réew du problème mu rek problème mu koom-koom wala problème mu xëy ñi ci nekk ci gaal ñenn ñi ñuy jël ci gaal gi di leen gis. boo waxtaanee ak ñoom wala nga def enquête ci ñoom dangay ngay gis ni dañuy fay ba fayaaleel yeneen nit ku fay ba fayaaleel yeneen nit am loo denc ci xaalis du koom moo tax nga jug wala ñàkk liggéey moo tax nga jug waaye loolu yëpp nag dafa laaj ñu boole ci sénégalais yëpp boole ci képp koo xamante ni euh, yitteel na la nga ñëw ànd ak gouvernement bi ngir liggéey ci moo tax maa ngi rafetlu ñu nag ñoom duñu ay opposition wala du ñu ay wujje ci loolu muy société civile bi particulièrement les ONG bi ñuy def liggéey bi ONG yi yëngatu ci loolu yëpp dañ leen boole ci liggéey bi mu nekk benn processus participatif mais aussi inclusif ñoom it li ñu xam ci terrain bi di ko gis di ko dégg ñu ñëw sotti ko li ñu taataan yëpp ñu ñëw sotti ko ci ndap li nga xamante ne ñu ngi leen ko dékkoon ngir idées yi ci jóge yëpp ñu mën ko en ensemble donc loolu mooy li nga xamante ni moom laa bëggoon a wax di jaalewaat encore une fois ñi fi bàyyeekoo seen ay famille di masawuwaat encore ñi nga xamante ni dañ ci am ay. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew.